la bu baax. ndeysaan bàjjan Lisu ñu ngi lay nuyu di dem si waat ci yow léegi ci kanam. Euh, monsieur le ministre d'État wax nañu sànq compagnonnage bi nga xam ni ba muy door di tàmbali da cee jàpp administrateur civil yor am njàng fekk koo xam ni Sénégal rekk ko ñor waaye nekk dans l'opposition nga ne damay ànd ak moom yombul yow étudiant ba opposant lenn lu ci nekk lu Ablaye Wade def fekke nga ko monsieur le ministre d'État kan mooy Ablaye Wade euh, professeur Lamane laaj nga ma laaj bu rëy boo xam ne ragal naa ne duma am tontu la xanaa le panafricaniste Lamine Faye moom moo ñu wax kan mooy Ablaye Wade ndaxte c'est vrai xëy na buñ ma tegee fii tey te ñeneen mënoon a toog sama place wax ci moom yàlla dafa dogal euh, ci dundam ak jaar-jaaram ma bokkoon ci ñu ko gën a jege ba may nekk ndaw laa nekk ak moom maa ngi doon def première lycée Faidherbe yàlla di dox li ngay wax léegi man commissaire aux enquêtes économiques la ENAM laa génne ba ma admee ENAM d'ailleurs dama ñëw mu bëggoon ma jël ci cabinet avocat am mais ci gàttal rek bañ waxtaanee mu ne ma ce serait pas mauvais que ñu am ay cadre dans l'administration <coughs> sinon man dama doon dem nekk avocat ci cabinet bi Ablaye Wade ma nekk directeur de cabinet bi mu nekkee ci gouvernement du Diouf 1985 ba 1998 balay boobu fekk na maa moom ñu bokk nekk prison lu mat juróomi weer di yeewandoo di fanaanandoo mu jël nguur gi def ma ministre def ma ministre d'état man maa bu ñu nekk ministre d'état directeur de cabinet waane li nga ma laaj dafa mel ne bi ma émission bi danaa ñëw ci Youssou Ndour tuuti parce que su dañ koy sant di ko gërëm émission bi moo ko yenul boppam moom ak suma xarit maître di keña di sant suñu mag du Wade dugal ci loxoom li may wax ci Youssou léegi danaa ñëw ci li nga ma laaj est-ce que xam nga ne Lamane waaw Ablaye Wade def na Youssou Ndour chef d'État quelques minutes <laughs> moom xam naa xam nga ko du ko jàpp. Hmm. waaw. Hmm. laaj ma nu mu demee. nu mu demee nu mu demee monsieur le ministre. dafa ànd ak Bono. Hmm. le grand artiste. waay seen xarit. waay. mu ñëw ñaan audience pour gis président lay Wade. président may ko audience boobu bis boobu man rek maa ko teewee ak Youssou ak Bono. xam nga bono kilifa la. wallaay kilifa la ay. bono wax ak président Wade ba jeexal wax ko waxu kilifa président war koo tontu mu toog ba si yàgg mu ne Youssou mu ne ko mu ne ko tontu ko. déggal loolu waay. Ah wallaay ah. Youssou Ndour ko xaj na man sax su ma ko waxoon danaa ko ah, président nangam nangam. mais responsabilité bi ko président Abdoulaye Wade di jox chef de l'État hmm. Youssou dafa nangu jël ko dal di koy tontu li ci gën a doy waar te gën cee neex ba ko Youssou tontoo ba pare tontu ko tontu chef d'État la Youssou tontu président wàdd yokku ci wàññiwu ci kon xam nga ne kooku hmm. solol na ko mbubbu chef d'état ci jataay boobu danañ ci ñëwaat ci yeneen ci yu sund jërëjëf Ablaye Wade nag man de su ma ko doon tënk rek xanaa lamin moom ma ciy jàppale dama naan sénégalais la mais boo xam ne bii xol bi Afrique moo ci nekk moom lañ ci dessiné waaw c'est-à-dire c'est porte un cœur africain Ablaye Wade jullit la murit la sadiq lu tax ma ne jullit la murit la sadiq la loolu ñëpp xam nañ ko mais buñ dajee yu mel nii am na yoo xam ne yi xañ na nit ñi xamuñu ko war nañ koy wax am na yoo xam ne nettali na ko moom ci boppam li wax toujours li daje ci man ci sëriñu murit fi ma jaar mu nekk ndaw bàyyam di ko téye di ko yóbbu Touba ba mu nekk docteur science économique droit waxul ak baayam baayam téye ci loxo ne ko man day Ablaye mënumaa def président de la république mënuma la ko def mais danaa teg yoon woo xam ne boo ci wàccul da nga ko doon yóbbu ko Touba jaarale ko Daaru jamono di ñëw ba mu dugg ci loxol sëriñ Fallu yooyu yëpp dañ koy tënk rek mm-hmm. parce que nettali nañ ko bu benn du ñaar mm-hmm. jamono di ñëw ba mu dugg ci loxol sëriñ Saliou Mbàkke suñu bàyyi ju baax ja mm-hmm. yàlla yàlla yokk leeram gis nga relation Ablaye Wade ak sëriñ Saliou lu doy waar la xaw ma ci lépp mais xam naa ci tuuti bii sëriñ Saliou nekkee ci xilaafa gi ba yàlla mel ne dafa war a dogal moom la ñuy wane ni gis nga président Abdoulaye Wade da ngi ni sukk sëriñ Saliou waaw noonu sukk ci kanamu sëriñ Saliou mu wàccub liggéey benn bés ma ñëw rek mu ne ma Habib Sy ma ne ko monsieur le président mes respects mu ne ma xam nga sëriñ Baara mm-hmm. ma ne ko déedéet xaw ma ko de mm-hmm. mu noppi ñu tegaat ca diir def naa une semaine fukki fan mhm. ma ñëwaat mu ne maa bib si mhm. xam nga sëriñ baara mhm. ma ne ko wax dëgg dégg naa ko may xaw ma ko rek mu gëdd ma le vice xamuloo ko da nga ko xamee dégg li ma la wax waaw laa ilaha illallah allahu akbar ma ne ah, góor gi de def na ma lu ma mosul def mm. yàlla dogal nag ma dégg sëñ Baara ci jamono jooju comme da daan dem Mbàkke Baari te sama gox la ma dem fekki ko fa ñëw ne ko ah, sëñ bi de sama bàyyi daf maa mere mu ne ma lum la mere ma ne ko damaa gis ne ko la xamul mu mere ko dama bëgg nag léegi ñu fasante ko lëre mu daal di kontaan ne ma fasanti coloré googu ngay wax ci man de nangul naa la ko bis ndekki tey mhm. dindi jaaru takkal ma mhm. ne ma jaaru bii la sëriñ sa sama baay alaaji fàllu daan joxe jaaru baa ngi nii jërëjëf jërëjëf jërëjëf si ñu teg ci weer mhm. sëriñ Saaliw wàccob liggéey allahu akbar jërëjëf jërëjëf jërëjëf si loolu mag ñi loolu dafay wone beneen image boo xam ni looloo tax ñu laaj la kan mooy président Abdoulaye Wade ndax te pareegu ca eh. nag diggante mag eh, kilifa diine yi danañ ci ñëwaat parce que diggante mag kilifa diine yi waaw mhm. gis nga ab président Abdoulaye Wade mhm. naam murid la sadix mhm. mais dafa làmb Tiwaawan làmb Ñaseen